ولا قوة إلا بالله العلي العظيم gannaaw bu ñu jàngee ak yéen définition wu ñu waxoon ne aqdun yufiidu xilla istimtaaci kulli min azawjayni bil aaxari ala alwajhi almashruuc mooy pas-pas bu fas buy daganalal ñaar ñu ko seq mën a wante ku nekk mën a bànneexu ca morom ka na ko sharia digale mu mel ni kon am na lu ñu sañut walla ci définition bi gën a yaatu aqdun yufiidu xilla al rajuli wal mar'ati wa tacaawunihima wa yuxaddidu maalikilayhima maalikilayhima min xuquuq wa maa alayhi min waajibaat pas-pas buy tax góor ak jigéen mën a ànd tey dimbale hante te pas-pas ba wax ku ne ca ñoom la mu am ak la ko war la ko ñeel ak la ko war biig ñu jàngoon lenn ci wisdom ak njariñ yi tax ñu yoonal sëy bu ñu waxee mbaax yi ci sëy dana tax ku nekk sawara dugg donte am na jafe-jafe yu cay ne waaye nga gis mbaax ga ak jàmm ja ca nekk te jàmmu yàlla ja ca nekk waral ko euh, ku xool téere fuqaha yi nag daa gis ne séddale nañu atte sëy ci juróomi xaaj maanaa wax nañ leen sëy ni ko suñu borom tuddee ci alquran ci suratu nisa yonentu sallallahu alayhi wa sallam ñaaxe ci xeet wi yépp e, dogu ci yoonal gi li ëpp ci fuqahaa yi wax ne sunna la wante bu ñu yëree téere fuqaha yi téere boroom xam-xam yi al fuqaha ul kiram daañu gis ne séddale nañ sëy juróomi xaaj sëy bu war sëy bu ñu sopp sëy bu xaraam sëy buñ sip ak sëy bu dagan ñu ne sëy bu war mooy képp koo xam ne am nga kàttan sa bakkan xemem sëy xemem goo xam ne yóbbu na la ci nga ragala tàbbi ci njaaloo soo sëyut ñu ne kii su amee mën-mën takk jabar farata la ci su amee mën-mën su takkut mi ngi am bakkar ndax mi ngi tàbbal bakkanam ci situation bu nga xam ni mën na def njaaxum euh, ibnu taymiyata rahmatullahi alayhi ak fuqahaa yu bari wax nañ ne ki nga xam ne lii mooy situation su yoroon alal mën a aji donte aj ponk la ci ponki lislaam yi juróom dafay teg aj ga ni tege te wuti jabar ndax li nga xam ne eh, bakkanam a ngi koy laaj te loolu rekk ko ko mën a faj mu wuti ko ñu ne waa bu dee jigéen nag moo nekk ci situation boobu ñu ne dee jigéen it moo bu dee jigéen a nekk ci situation bi bu sëyul moom it dafay am bàkkaar ñu ne ah jigéen nu mu sëyee da bëgg jigéen moom mooy dem takki jabar ñu ne déedéet waaye ñaara mën a am mooy am na ñu koy bëgg su ca gisee nawle su bañee sëy mi ngi am bakkar ndax mën na tàbbal boppam ci lu xaram bi ci des mooy bu gisee kum bëgg ci góor ñi amul lenn luy xaraamal ci shariatu luy tax jigéen maanaam amul lenn luy xaramal ci shariatu ne jigéen eh, eh, eh, maanaam jigéen mën a dem gis kum bëgg wax ko ko xaramul ci sharia li ciy tegtal mooy ndaw sa mayoon boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li nafsiha li nabii sallallahu alayhi wa ñaareelu xaaju sëy wala ñaareelu xaaj ci attey sëy ñu ne mooy sëy bu dag sëy bu ñu sopp sëy dina nekk luñ sopp su fekkee ne Euh, nit ki am na kàttan am na lu mu yore soxna waaye woolu na boppam ne du njaaloo kii sëy sunna la ci moom sopp nañ ko ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam looloy sunnaam te loolu la digle ñetteel bi ñu ne sëy bu xaraam waa sëy nu muy xaraamee ñu ne mooy koo xam ne leer na ko ne ak caay-caay ak ndoomeeraame ngi ci moom goo nga xam ne jigéen ju mu nekkal dana la lor dana la tooñ ñu ne kooku sëy dafa xaram ci moom ndax lépp loo xam ne dafay yeggale ci lu xaraam lu xaram lay doon ñeenteel ba sëy bu ñu sip lu ñu sib waxoon nañ ko ci bi ñuy introduire euh, jotaayu fiq ne mooy loo xam ne boo ko bàyyee am tiyaabo soo ko defee doo am bàkkaar sëy bu ñu sib mooy koo xam ne euh, wóolu wut ne dana lor jigéen waaye nag njortu na ko ci boppam comme jortu na ko ñu ne sib nañ mu sëy e, juróomeel ba ñu ne mooy sëy bu dagan mooy koo xam ne am na xememtef ci sëy waaye ragalul ne dana tàbbi ci njaalo wóoluwu ko moom daal ma ngay sëy ngir e, faj bànneexam waaye amul benn crainte ci ne bu sëyul dana tàbbi ci njaalo amu ca yaqin tamit ñu ne kii sëy dafa dagan ci moom mais nag yéeneem mën na tax sëy romb dagan nekk jaamu yàlla ci moom mooy su yéenee ca sëy ga fegal boppam njaalo walla wut ca njaboot ngir euh, euh, wuyu santaane yonantu sallallahu alayhi wa kon li koy tàqaleeg sunna moom sëy bile mooy yéene innama al amalu binniyat ànd ak nag lii docteur euh, docteur ak al ustaadu docteur euh, Sayid euh, Sili la ñu wax ca fiqhul usrati gannaaw bu ñu jottali ko waxi fuqahaa yi loolu mooy li wér mooy sëy atteem mooy sunna la sunna yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam yeneen yi ñëw yi yëpp fuqahaa yi tudd ko dafa di yu gaar maanaa du cosaan lii atteem général mooy sunna la su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaaxe koo xam ne nag yii ñu wax gaar na la sa atte soog a soppiku sa atte soog a soppiku boo defee ñu dimbale suñu bopp dimbale njabooti dimbale xale yi ñu sëy ndax eh, musiba yi xew yépp ñàkk sëy daf ci bokk te yi tere xale yi sëy dafa bari ngay gis ku ne la dama jàng damay xaar ma ah, xaar moom xaar la tudd waaye bu subaa nga gis ko mu ne la kii sama boyfriend la wala sama girlfriend la wala sama nangam xoolal musiba boobu te tamit xale yi amut responsabilité la ñi am ñu dimbale leen ñu dimbale leen docteur Salah mu ne mu ngi proposé ñi am euh, bu ñu bu ñu mënoon a defar benn banque boo xam ne pour loolu walla benn mutuelle boo xam ne pour loolu xale yu toll ci sëy amuñu doole ñu dimbale leen ci waaw waaw ñu dimbale leen ci jur yi tamit fexe ba euh, li ñoo laaj ci canak ci mbéy gu njëkk ak yi nga xam ne aada aada aada rek dara du ci diine ñu dindi ko parce que xale yi bu ñu bëggantee fi fi ñuy gisante doo ko yëg waaw defe moo xam góor la moo xam jigéen la koo ci xam ne gis nga ne am na fu mu toll nga protéger ko parce que àddunaa ngi tukki àddunaa ngi tukki de waaw ah. defe yal na yàlla ah, yombal ba nga xam ne xale yi daañ mën a dugg ci néegu sëy mag ñi ci dugg tamit ak xale yi ci dugg it yàlla protéger leen may leen ci njaboot njaboot yoo xam ne yu barkel la te defaral ñu suñu zaahir defaral ñu suñu baatin te ñu wàññi tiitaru gi wàññi bëgg feeñ gi wàññi nangam wàññi nangam yëpp musiba la rek xubbu zuhur yaqsimu zuhur waaw nee ñu bëgg feeñ dafa dafa damm gannaaw dafa damm gannaaw waaw defee e, sëy jaamu yàlla la am na sax ñu ko diingat ñu ne ndax e, bu doon jaamu yàlla du wér ci yéeféer te yéeféer yi dañuy sëy ñu ne jaamu yàlla la même su dee yéeféer dañ koy def mu wér ci ñoom terewut muy jaamu yàlla ci jullit même su dee du jaamu yàlla ci yéeféeri mi ngi mel ni tabax jàkk bu ko jullit defee mu wér nekk jaamu yàlla ci moom su yéeféer joxee xaalisam ñu tabax ca jàkk mu wér te du nekk jaamu yàlla ci moom loolu mooy li ci loolu mooy li ci nekk moo tax jar na jar na euh, góor góorlu bu ko defee nag euh, ci jamono yi di wala bés di ñëw ñu waxtaan ci naka la ñoo tànnee naka la ñoo tànnee jabar naka la ñoo tànnee jabar yan yan la wut ci jabar ak naka la ñoo tànnee jëkkër waaw ak kan lañu ñu war a doxaan pour takk ko li ngeen di tuddee labat ngeen baal ma ci kàddu gi waaw yi nga xam ne moom la ci sharia eh, jàngale fi mu ñu ci eh, duggloo ak fi mu ñu ci yemloo eh, bi idnillahi tabaraka wa xanaa ñu yema foofu balaa moo gën gudd hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ba subaak jàmm